salaamaaleykum chers internautes Dak Médina salaamaaleykum yéen ñi nga xam yéen a ñuy suivre un peu partout dans le monde entier ñëwaat tey seen émission muy làmb ci biir euh, di ziar communauté mouride bi nga xam ni ñooy waajal 18 safar euh, di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo ki nga xam ne mooy xalifa général muy sëñ Muntaxa di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si màggal bi si jàmm ñu ñëwaat si jàmm euh, tey dama am émi dama am invité bu spécial muy Siteu bu anti avant tout dama naan commune naf si saari xati mooti dafa ñàkk kii di waajuram bu góor muy fan yi ñu génn nii balaa ñuy xuus émission bi dañ ko koy jaale bu baax di ko ñaana yàlla xaare ko àjjana ak bépp mbooloom jullit bu mu fa fekk yàlla xaare leen àjjana sëñ bi ñu ngi ziar bu baax. waaw ñu ngi delloo ziar di wax bisimilah bisimilah ne wala yàlla di wax ne jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe borom Tuubaa jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngàcce ngalam Baye Galas Mbacke si ndiir di ko ñaan yàlla mu yàgg fi loolu di wér Mbacke Balla di sunu buntu ci Serigne ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax waaw di santaat yàlla di si yonent bi di sant sunu ñaari waajur waaw di ñaanal sama papa fu mu tëdd ak sama lay yàlla yërëm la xaar leen àjjana xam nga di santaat ñëpp ñu may jàppale di nuyuwaat ñëpp di leen nuyu bu baax a baax xam ma di nuyu sama gaay yi ma kenn sama koñ Gueule Tapée Médina Fass Colobane bàyyiwuma ñëpp taan bi yëpp maa ngi nuyu ñëpp waaw di leen dalal jàmm. Euh, Siteu ñu ngi lay ziar euh, lu waral Siteu Siteu bu anti bi ñaari turu làmb ñaari turu mbër nga boole ko. waaw dëgg man Siteu dama ko daan si borom may booy royu ma ko ci làmb royu ma ko ci dara mu ko daan supporté xam nga mu nekk Baye Fall xam nga ah man dama bëgg nit koom jom ba muy doog a dugg si làmb dama gis ni ñu bëri teguñu ko mbër naan du dem yàlla demale ko di jàll di jàll mooy muy bëri daa may dem stade comme maanaam stade laa ko seetaane dugg si koñ ba di yuuxu sita sita xam nga andi nag sama grand frère sama mag la su ma bëggee làmb moom si dugal moo ma yar xam nga waaw gars yi yow sita sita sita mbër tur bi law sita bu anti waaw mënu ma ci dara noonu demee quoi. waaw Siteu bu mhm, man bu dee làmb anti mooy sama royukaay mooy sama idol waaw mooy sama lépp ndax bul moo ma jàngal bëri lépp moo def si man. kon daal anti tey moo def champion. moo def champion lépp man. rëccu tur bi nga non non rëccu ma ko ndax maa ni gaynde la kooku vainqueur la kooku gars yi ñàkk koo ñeme sax moo tax mu tegi làmb nee dem mooy loolu mais di ko wax ne raxam moo ngi fi nii lépp lu mu ñàkkoon si làmb man incha allah rabi maa ngi tegu si tànk lépp lu mu ñàkkoon si làmb kon sax mën na ko ni anti dafa bàyyi làmb. waaw maanaam loolu lañ mën a gëm waxagum. dafa saaxi lamb ji dafa métti mu daw dem Europe toog. xam nga ni ko ko xam-xam ni gaynde dëgg la. non dañoo gis mu daw saaxi dem dem Europe toog. gars ñoo ko ñemewul gars ko ñemewul jël koo wax anti mu ne day dóore kenn ñemewu ko. tey bu ñuy dugg sa palmarès dañuy xuus tuuti yaa ngi yaa ngi ci 6 combats 5 victoires ak benn defet di jëm ci septième combat avant tout dañuy ñëw tuuti ci sa combat yi nga xam moom mooy jot a laal sa dernier combat mi ngi top 5 ba léegi. nga daanuñ ci mbër mi ñu naan Double Less 2 boobu ba léegi mi ngi top cinq secret bi lan la. waaw secret bi du dara loolu entraînement rek waaw respecté ñu may àndal respecté sama waa koñ respecté ñëpp xam nga làmb dama bu amee ma jox ko cër jox lu mat ndax ma nekkuma si ay caaxaan waa ku ma xam entraînement la ma xamee jom fit ful ak fayda waaw loolu laa yomb ci làmb ji waaw ndax yàlla nag moo yor ndam quoi mais lépp lu wax si làmb rek ñun dañ koy def duñ ci bàyyi benn détail waaw yàlla nag moo yor ndam quoi moo ñu suturaal may ñu ndam. waaw di santaat yàlla bu baax. xam nga mbër yi heure bu ñu daane boo waxee rek ñu ne la non yàlla mooy ndam yàlla moo kii mais xanaa ki ngay bëre yàlla la ah, mais xam nga ñaari ndam mooy dugg mais benn mooy génn. waaw làmb noonu la demee quoi moom dafa ànd ak ay mboqam yi yëpp ko. ngemb ko ma ànd ak say mboq ñu yëpp ma ngemb ma mais ñaaree dugg moom bu sañoon ku sañoon rek boo ñibbi sa mbër maanaam ndam ngay yóbbu mais yàlla mooy séddale waaw danaan kii tey day am suba dee ñaax làmb moo demee dañ ne làmb daj te da nga làmb daj suba nga làmb doo daj waaw loolu champion bi nga xam ni nu mu tuddati sax euh, muy Petit Baye Fall numéro 2. Double Less numéro 2 Petit Baye Fall numéro 2 yow xanaa dañ ne lay mbër yi am yu jeexalee 2 nañ leen jël. <laughs> non du loolu. Ah, non mais si parce que sa deux dernier combat yi mujjee yëpp kii deux kii dafa jël deux ju mujjee ko kii jël deux mujjee ko nga jël la ñoom ñaar ñëpp daal leen. waaw dëgg la mais maanaam xam nga rek ay xale lañu quoi dañoo dañoo nekk si yoon. maanaam tey làmb dafa demee noo xam ne boo nekkee si yoon maanaam ngeen di prouver kii di prouver rek dañ leen di boole après ñu xool quoi noonu la demee ñu boole Petit Baye Fall bi ma koy daan musul daanu maa ko jox mu nekk champion dëgg bi ma koy daan mais noonu la demee quoi moom loolu la. Mhm. bu ko jógee foofu boo xam ni euh, combat ba amoon importance sa carrière nga daan ci jëli bu am solo boo xam ni boo demee fee di 2 Modou Mbaye nekk fa di Bantamba top 5 ba léegi yaa ngi fa roofu boobu ba léegi mais gars yi nee nañ euh, prise bi da nga doon daanu par yàlla ñëw rek nga def prise boobu noonu ah mais si des nga def prise yoo xam ne du yow est ce que nga ko bëreewaat. loolu de yàlla xam ne ñu ma xamul ñooy wax loolu dëgg man fekk ma bat wallaahi azim laa la naa bëri ay 9 combats la jëm maanaam loolu def comme lamb arène rek mais bu doon loolu noonu wallaahi azim laa yëpp top 5 la jëm jël bi ma daan nii du dara barki Serigne Touba Mbacke yi nga mbooba léegi ñu tëgg fii ñoom ku yarkati Diop maa ko jël maa ko jël deux fois yegguma foofu jël yi fa daan moo gën a rëy fuuf waaw lii entraînement moom ma ko may bëre lu dara yii di ñëw mooy gën a garaaw foofu bu neexee ak gàllaaj non gàllaaj gaa yi da nga bëgg gàllaaj trop <laughs> waaw mais ñun defuñu dara doxuñu dara dañuy jox ñu kii rek waaw loolu laa moom détail moom duñ si dugg quoi parce que xamuñ si dara foofu noonu tam bu fa jógee euh, mbapat bi nga xam ne waa Ndakaaru ñoo ko organisé woon euh, ñu téyoon ko drapeau bi ki nga xam ne mooy Kati Diop Euh, boobu tamit yaa ko final la moo tax final bi amul. waa final loolu la Ndakaaru du waxtaanee. <laughs> dëgg dañoo bëri combat métti affaire dem ñu bëri ay une heure du matin ba jëm trois heures te mënul daan sa morom waa ji nangu te bëri boo xoolee moom ëpp gabari foofu mais maa bëri làmb jëm ñu bëri ba mu commencé guddi nag gars yi dañu ko yóbbu samedi te maa ngi boobu maa ngi wàcc sama combat ay semaine moo ci des maa ngi war a bëri maag Douglas dem fa ba finalu ko ba samedi samedi boobu nag ma yàlla def yàlla dogal ma feebar xam nga mujj ma dem ci làmb ji waaw moom tam ma dégg tam daf feebar affaire yooyu quoi loolu moo loolu moo tax moo tax mujj ñu yeggali finaal bi waaw. léegi bu noonu euh, da ngay jëm ci septième combat arène nga mu nekk combat boo xam ne combat bu am solo ci sa carrière nga war ci daje ki nga xam ne mooy booy jóob Boy Diop di champion bu mag ñu gis dernier combat bi mu bëri bëri na fekk trompeur def lu rëy mu booy boo xam ne man dama ne Siteu xanaa bi nga koy jël waxtaanoo say mbokk wala waxtaanoo say supporters wala yow da nga bëgg coow làmm moo la boole Boy Diop wala. ah Boy Diop mbër la comme yeneen mbër yi ma doon bëri laa waaw man amaana yi ndaanaan la champion la waaw tey comme lu ma la wax rek tey dafa prouvé ma prouvé yàlla daf ñu boole mu nekk si yoon ma nekk si yoon mais Boy Diop moom ah keroog maa ko wax fii la làmb jaar nangul ma ba faw barki Serigne Fallou Mbacke làmb fi leen jaar nangul ma ba faw ndax xam maa ne du maag moom. du si bëre du si doole du si sañ-sañ du dara. kon da nga jàpp ne yaa ko doole yaa ko daa ko bëre yaa ko ëpp sañ-sañ. parce que Serigne Touba maa ko daa ko bëre. booy Diop xanaa seetaanoo ay dernier combat. seetaan naa ko bu baax. booy Diop gis nga taay bi mu yor. déggoo lu ma la wax. gis nga mbooloo bi topp ci ginnaaw. jaaxaloo man su ma jógee taan bi ñëpp jóg te bu neexee yàlla à si lay bëri see 14 heures ñu tëj stade bi bu neexee yàlla day xaar leer laa lay wax. dama tax yéen mbëru Fass yi ngeen ngeen mën am sañ-sañ kon ni bëree si côté bi ne ko dañuy tëj stade bi la moo waral lool la mooy secret Fass ak mbëri Fass yi. waaw parce que fii lañ dëkk fii buñ buñ jugee ñëpp a jug. am na mbëri dëkk fii Medina bu ñuy bëri stade kenn du dem mais mbëru Fass yi dañu gis ni bu ñuy bëree stade Ibama day fees dell la mooy seen secret yéen ak waa Fass. moo tax ñu bu ñu demee stade duñ ci bëgg dara suñu baxan bii nii wallaahi azim bu ñu sigee ba xool gars dañuy jaral dee si biir géew bi barki Serigne Fallou Mbacke loolu kese la mais du dara affaire yi koo romb jox ko lim jox ko cër bi moom nga nuyu ko seex moom ñëpp jàmm boo xewloo gars yi wuy si la parce que boo xewlee yow mën nga luye siis ak baase mais nit ñi mënoo leen luye nit ñi loolu war a lan lay toppee waaw noonu la fa demee loolu war a lan lay toppee moo tax bu ñu xewlee ñëpp naa Siteu bu andi day xeex si koñam chaque ko wax <laughs> non si nee nañ li nekkoon si yow bi nga nekkee xale ba léegi dañul yow jàppoon ni léegi mbër nga da nga bëri kattan une deux trois nga jàpp booy si koñ bi di leen dóor loolu tam bëgg naa nga wax ci ensuite wala ngay foog ñoom non loolu moom amul moom lu tax di vrai moom loolu moom amul. waaw ah, ndax bu amoon moom dama koy wax ndax man dama dëggu du ma fen loolu soo amoon dama koy wax bu amoon sax xanaa kon bu ma doon bëree stade bi kenn du ma topp waa ah, koñ bi dina néewal doole. <laughs> non loolu moom amul moom. Ah, loolu moom amul franchement parler waaw waaw affaire moom boo commencé nekk di nga dégg lu nekk yàlla waaw boo amoon dama koy man ku xam du ma si a xool nit ci yar teggin nga ma xam. waaw kon du ma man bëgguma sax kuy néewal doole nit barki Serigne Fallou. bu ñu génnee foofu dañuy seen écurie nga nekk bi di go di kii écurie Colobane euh, mu bëri ay booy yoo xam ne yéen a tolloo génération mu bëri ay booy yoo xam ne dañoo toll fi nga toll ñii am ay 7 combats ñii am 8 combats ñii am 6 victoire ñii am cinq victoire est-ce que jalousie ñu am seen seen écurie boobu te écurie bu bees waaw ñun moom yàlla dafa def dañu nekk ay xale yàlla def ñu boole suñu xoole doon benn ñu teel a déggoo mm-hmm. waaw ku ci xewle day mel ni que sax yow yaa xewle kon écurie bi ñu mel ne ay Ibou Afia ñu ngi fa ñu ngi fa seen yoon di bëri ay armée booy ñëpp ngi fa ay imposé xam da nga yaar ñoo bokk ndey ak baay kenn soxorul kenn ñun yëpp yaa jàmm lañu yéenante quoi moo tax saa bu ñu demee yàlla ne noonu la débuté woon écurie Balla Gaye noonu la débuté woon école de Balla Gaye mi écurie Fass écurie bu ne mais bu ñu demee ba ci biir jalousie day am est-ce que yéen pare ngeen ci loolu waxtaan ci seen xel comme ay xale ngeen est-ce a ngi daje sax def ay 100 pour cent comme gars yi ni nii loolu noonu dañ ci jàng leçon yu bari ñu si mel ni bu ñu xoolee yenn suñu yenn grand yi ñu si jiitu si làmb ak fu ñu mujjee ak seen seen biir mais nag dañ ci jàng leçon quoi xam nga parce que dofuñu ñaanuñu yàlla tey dem ba ci biir xam nga kii jaar nii kee jaar nii ñaanuñu yàlla loolu noonu jàng nañ ci ay leçons yu bëri tam ñu ngi am nañ am nañ suñu staff am nañ suñu mag ku ci mel ay Sóoru Faal ay Tonnerre booy Jobaas ay Grand Bàcc ñu ñu teg si yoon quoi waaw donte ay xale lañ mais ñu ngi teg si yoon ñu xam fu baax fu baax fu ñu war a teg suñu tànk. Mhm. sa relation ak mbëru yi su ma nee mbëru Fass nag dama ciy jiital ki nga xam ne mooy Ada Fass actuellement moo ne Fass bente ñente mi ngi Fass fa la dëkk plateau tamit mi ngi Fass sa relation ak ñoom te bokku leen écurie waaw bokkuñu écurie mais ay Benteñ ay Arafas ak ay Prado ñëpp jàmm laa seq ñoom waaw man ku ma si yëg ma yëg la ku ma yëgul tam du ma la yëga ah. man noonu laa mel waaw ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul yëguma la ndaxte man sama bopp laa gëm gëwuma kenn gëwuma kenn du ma bootu si ginnaaw benn mbër sama yoon la nekk maa ngi xàll waaw yàlla nag moo yor ñëpp yàlla moo yor ñëpp te lépp lu war a def mbër champion man maa ngi si kenn xam moo si lu ñàkk fay la kenn du ma dégg si lu ñàkk fay du ma topp si ginnaaw benn mbër du ma dunguru kenn incha sa diggante Gris Bordeaux ñu gis keroog open press bi nga ñëw tuus def lu rëy génn nank daw. ah waaw loolu daf ñoo war na de kooku moom mooy mbëru temps bi Ndakaaru boo ko déggee kooku mooy Ndakaaru. kan mooy Ndakaaru. Gris Bordeaux. mais gars mooy Ndakaaru. ñu Gris Bordeaux mooy Ndakaaru boo ko déggee Ndakaaru mooy gars yi nañu bàyyi affaire yu jaxase yooyu baaxul lu si supporter la rek mais ku kuy mbër doo wax loolu. Gris tànk yu mu toll yu mu yu mu yu mu toll nii maanaam fu ñun ñu toll nii bokk Gris Bordeaux tolloon na fi si làmb ñëpp nangul ko mais tey dafa nekk fin de carrière booy lu ñu mën moom amaana mënulu ko mën mais tey boo déggee Ndakaaru Gris Bordeaux mooy Ndakaaru ñun bu xew la dañ dañuy sol suñu set dem stade dañuy jaral sax dee dem supporter ko yàlla moo yor ndam waaw gaa yi nañu bàyyi nii quoi rafetul. Hmm. am mag bu ne ma Gris Bordeaux moo yor drapeau Fass kon képp kuy yeewoo Fass rek heure boo xëyee da war a ñaan Gris Bordeaux. waaw loolu dëgg la ndaxte moom moo yor moom moo yor lu fi ñoom béykee bàyyi woon ak tafaage yi si loxoom ne. comme tey ku képp ku fi yeew rek Fass Mbinna Gueule Tapée Colobane fépp laa la wax taan bi nag Grand Dakar fépp war nga ko ñaanal waaw war nga ko ñaanal quoi ndax man loolu soxor laa ko jàppee mënoo dëkk fii nii kii ndëkki di yeewoo fii dëkk fii yow ngay dem di maanaam di faral keneen quoi man moom loolu laa gëm man gëwuma keneen ñi si taan bi fii képp ku ci xew xewle dara dama ci xar sama tànk tubay jàppale si li bépp côté nag waaw ñoo nekk ci Gris Bordeaux ak Ada Fass damay ñëw xuus te yow yaa moom émission bi mais Gris Bordeaux day jëm ci combat bu mag war cee daje kii di doomu Faalaay Balde di amaa Balde nee nañ dix dix dix ans yi jàll yëpp Gris Bordeaux fi bëre combat yi gën a rëy waaye dix ans yi jàll yëpp Ama Balde moo ci mbër bu daanuwul. waaw dëgg la moom laa lay wax xam nga Gris der la gaynde la Ama Balde der la gaynde la Ama na jàpp ni tamit mu ngi doog am combat cinq ans six ans xaw mu ngi nii bëriwul boo xoolee xam nga te mooy li ñu koy wax rek moom na dafa war a liggéey entraîné ba wow kongu ñëw taxaw jàmmaaloog Ama Baldé. loolu nga koy conseillé. koy conseillé quoi moom waxam ñu lu lay wax sa rax Siteu bu ante mooy wax ak yow dañ la ñaan yàlla nga entraîné ba wow kongu sa diggante ak Ama Baldé andi état boobu musta andi si làmb ñëw jàmmaaloog moom faayat ak moom bëree yàlla may la ndam si kawam ci kàttanu yàlla waaw ndax moom combat am day andi jom fit fulla ak fayda mais maanaam daa am leen lu ndaw rek lu koy manqué. daan mooy problème voilà moo daan boobu noonu est-ce que gi est-ce que Giro desul mu tekki ngem. non du tekki ngem ba. mais mënul daan boobu léegi. xam nga maanaam ndam yàlla moo ko yor quoi. yàlla moo yor ndam keroog boo xoolee combat bi mujj moom def na lépp bëri na xeex na mais yàlla boo ne woon tey Gris Bordeaux du du du am ndam non du am ndam kenn mënu si dara. billaahi du am ndam kenn mënu si dara waaw di ko ñaanal yàlla nag yàlla may ko ndam si ko Ama Baldé Ama xale la Gris moo ko mag mais tey jii nii Gris mu war naa si yàlla tey bu entraîné woon boobu kongu laa la a Ama Baldé du am dara si làmb ji. bu ñu si loolu dañuy dugg ci diggante bi nga xam ne mooy Zarko Zarko gaynde làmb ji Ada jël ko Ada day xarul ah. non xarul. day xaru si. mais la yow xanaa mais mais attends dafal nànk nga si da ante dama bëgg tam ñuy waxante dëgg quoi làmb ji ku ci ne xam nga ki la mën jàpp ni Ada Fass moo mun andi. moo mun moo mun moo mun Zarko. Ada fu mu toll ni si làmb su jëlee Zarko da am lu muy xerñaa bu yow mu tekk ngeen moom moo gën a nekk xale moo ëpp doole moo daax a bari moo ëpp doole foo teg. wallaahi moo doole lu leer laa lay wax nii waaw ndaxte làmb làmb amul lu yomb làmb boo si nekkee di xool lu lu yomb maanaam nga teg sa ngemb quoi bilaay nga teg sa ngemb te tey aada fa la toll si làmb aada moo war a dem Zarko dafa war a puus ndaa nga aada dem moo nekk si yoon mooy xale lu leer laa lay wax moo nekk si mooy xale. naa la da nga am yaqim que ni làmb ji day delluwaat Fass. Zarko xëbër xëbër bi la si am nii rek. kese waaw xëbër xëbër na tal na ko na ko dund nag benn yoon. mais si biir géew bi aada mooy diriger bu neexee yàlla waaw te wax Fass yëpp a ngi si ginnaawam ñëpp. kon aada loo koy dénk ci combat bi ñu jëm comme conseil nga Gris Bordeaux la nga koy dénk. waaw li ñu koy dénk mooy mu entraîner rek. entraîner respecter adversaire am te xam ni moom mooy xale. jour boobu moom moo war a diriger te lii mooy làmbam lii boo ko daanee tey jii amul benn mbër buy taxaw di koy bañ waaw amul ku koy taxaw di koy bañ te gëm naa ni moog Zarko bu gaaw waaw lu leer laa lay wax. bu ñu jógee ci sa combat bi nga jëm nii nga war ci bëre ki nga xam ne mooy Boy Diop far nga toll ci ay entraînement ak bu boobaa tamit say supporters ñi nga xam dañu lay bëgg lan la ñuy war a xaar ci yow. waaw ñun moo ngi rek comme ni ñu doon waaj suñu combat yi. nan combat boo xoolee combat yi nga doon waaj parce que da ngay bëre champion dëgg la xam nga tey jii man man kii nii yàlla xam na ni boo jóob bii xel ma xel ñaar ma ko du ma sax tëdd ba koy maayin. la moo tax ngay mbër mi mbër. xam nga xel ñaaroo loolu. damaa xam lu nekk si man moo tax. mais xanaa sept séance ngay def par naan man booy bi mooy xel ñaar ci moom. trois séances laay entraîné par jour dama yeew quatre heures du matin dem géej su ma fa jógee dix heures ma dem ma jógee dix sept heures ma dem contact dama xam lu si man dama xam lu moo tax man gisuma booy jóob boobu noonu man ne sama kanam moo ma gën a ñor foofu damaa nekk si yoon te bu si kàttanu yàlla dë boo jób dë daf may xajal lan nga nar ci bés bi li ma nar li ma nar dégg lu ma la lépp luy neex si stade bi maa koy neexal mooy lan ak lan du ci bëre bi du ci xeex bi du ci fecc bi lépp ambiance bi lépp maa koy def neex yàlla yaa nar a du stade bi maa nar a duy stade bi ah dégg lu ma la à domicile lay bërisee day xaar à domicile lay bërisee fii ñun ñoo ko moom bilaahi maa ngi ci nag di bu baax maa ngi entraîné maa ngi cay waaj sa sa mbokk ñëpp maa ngi waaj bu baax a baax a baax baax comme ni ma doon waajee yeneen combat amul dara lu ci changé ndax mbër la xam nga mbër la dama koy nangul champion te ji nga làmb pour nga nekk champion foog nga daan champion amul lu may tëdd sax di koy xalaat barki Serigne Touba damaa xam ne bu ñu arbitre génn suñu diggante laa la wax de du ma ko réglal un mètre te su ma ko jàppee làmb ji jeex ndax man maa ko daa bëri maa ko ëpp doole. tey defe naa Fallou Ndiaye moo tëgg làmb ji Fallou Ndiaye waxaat na la beneen avance ci diggante bi wala boo daanee waaw ñu ngi ci Fallou Ndiaye woo ma yeneen mbër ñu yeneen promoteur tam ñu ngi ñuy contacter waaw combat bu ñu ci génnee incha allah rabi dañuy dalaat si beneen. waaw bu gën a nooy wala bu. Fallou Ndiaye kay ñaari contrat la si signé ak moom. waaw. est que mën nañ am ñaari mbër yoo xam ne ñu ngi yaay njotti ñu mën nañ nekk sa xel. non non boo booy moo ñu tudd kenn. lu tax boo jàmm mais attends dañuy dañuy dugg sax ci wax ji booy jàmm gën ni booy ñu ngi lay menacé nee da nga leen yàpp parce que nga jël turu Siteu di ko bëree waaw yow booy Loona Ndiago booy yëpp ñu ngi wax. non waxuma ko booy yee ko wax. du ma wax si ñoom. lu tax doo wax si ñoom xanaa leen ragal. non man du ma leen ragal ma bañ a sonal sama mbokk yi. waaw booy jàmm gën ay ñoom Loona Ndiago booy ne. aw ma lu ma wax ci kenn. Hmm. wallaahi aw ma lu ma ci wax kenn ñoom ñoo ngi fi maa ngi fi làmba ngi fi. waaw ku ma làmb boole rek naa bëri yow. te bis bu ma ku ma si dajal si géew dégg nga bu ante bu toog sol yére damaa neex a ñeme de mais barki maam Serap Fall ma takk samay jaaj si biir géew waaye su ma la nee randu da ngay randu bilaay man koo ma combat du ma xaar mbër man maay attaqué maay bëri maay daan. sa biir wax yow bàyyiwoo fi benn mbër. bàyyiwuma fi kenn ku dul waa Fass yi bàyyiwuma fi kenn su ma waa écrit ku ma làmb boole damay bëre ak yow waaw bàyyiwuma fi kenn amul kenn ko ma fi bàyyi. ñu jëm ci bis bu mag nag dañ lay bàyyi nga woo say supporter woo ñi nga xam ne ñoo lay jàppale parce que dafa am benn sama benn boy bu dëkk sa koñ bu tudd Mouhamed euh, di liggéey Sonatel. moom it bokk na ci ñu dox ci émission bi ak bàcc di ma woo pour ma jël la moom it mu yëgee ni dama lay jël woo na ma téléphone kontaan ci Mouhamed mën naa la dëkk nag mais mi sa koñ Sonatel lay liggéey moom it muy booy bu booy bu am yaakaar ci yow tamit moom bëgg naa tamit nga koy woo say combat mu ñëw jàpp ci at képp koo war a woo rek ci bés bi dama lay jox micro bi nga woo ko parce que combat bi nga jëm combat capital la te xam nga mbër mu ndaw dafa laaj dimbali surtout le maire Gueule Tapée Fass Colobane ku leen Euh, l'international nu mu tuddati seen waaj ji Assane Diouf moom it ñu koy woo ci combat bi waaw waaw gis nga moom bëgg nañ mu ñëw moom jàpp ci bi anti waaw comme daw nga làmb ji anti jàppale sa mbër. waaw ñuy sandaar ñëpp ñuy sandaar ñëpp di woote ñëpp di woo suñu monsieur le maire loolu respect maa ngi ko woo jàpp si na ñun ay mbëri ndaw dañ jàppale bu ñu poussé ñu dem wallahi azim ñun ay bëri ko si mbartal lañ bu ñu tegee loxo ñu dem di woo ñëpp di waat Assane Diouf bu baax l'international moom duma ko sax moom maanaam aw ma fayam moom ma inscrit mooy may entraîné di ma jox mooy lekk même bu fi nekkul la ma jox may lekk matin midi soir añ di santaat jabaram Diana Ndiaye maa ngi ko waat si combat bi maa bu baax baax a baax xam nga di sant Kara Morom yi nag waaw di ko woo si combat moom tamit di ko wax moom làmb ji làmbam la làmb ji làmbam la di woo borom Grand Dakar waaw maa ngi ko ci bu baax a baax mais gis naa lépp taxaw bi maa ngi gis lépp di woo sama grand père tonton Sana maa ngi ko sant bu baax a baax a baax ñoom ñu may commencé jàppale te muy sax jegeegul barki Serigne Fallou président Daouda Seck maa ngi leen di woo si làmb ji bu baax ñu jàpp ñu comme si ma dem si kattan yàlla de yàlla def ñu si kaw Boy Diop de incha allah rabi ndam lu gaaw sant ñëpp la DG maa ngi koy sant maa ngi koy sant bu a baax a baax di leen woo si combat bi ñoom ñëpp di leen ñu ñoo jàpp si jàppale ma waaw di sant sama mafia am na sama boy ko ñu aw seen fay maa ngi woo ñëpp di leen santaat bu baax a baax ñoo jàppaat si combat xam nga maanaam ku lim jum quoi xam nga mënoo lim ñëpp mais maa ngi sant ñëpp képp sama sama xel mooy fatu quoi mais maa ngi sant ñëpp ñi may jàppale. di woo ñëpp di woo sama mbokku joolaay waa Casamance. maa ngi bëgg nga dugg ci parce que waa Casamance la booy bi ngeen gis nii waa Casamance la. waaw moo ñoom Balla Gaye numéro ak ñoom la ak ñoom la dëgër 2 ay Sa ñoom ñoo bokk foofu li nga xam ne mooy Casamance ñoom ñëpp ni ñëw jàpp ci làmb ji. waaw maa ngi woo ñëpp maa ngi woo ñëpp sama mbokku joolaay man joolaa laa si ndey si bàyyi maa ngi woo ñëpp. nañ bëgg na nga lax ko ci joolaa woo <laughs> la waaye Ndiamba euh, muy borom di wanku euh, di Ndiamba wanke euh, ku di si doos mi bet di santaan ñëpp di woowaat ñëpp ñëpp waa Casamance bàyyi ma kenn yi xam nga waa deuxième njaago maa ngi di maa ngi di woo di santaan bu baax baax maa ngi taxaw bi. maa ngi gis lépp di sant sama mbokk waalo waalo nag ndax man joolaa laa mais waalo waalo ñoo ma yar waalo waalo ñoo ma yar maa ngi sant sama yaay su fay jaañ sama maam maawolo sama grand Chris sama nijaay maa ngi leen di sant bu baax di leen woowaat si combat jàpp comme si naan jàppee sama grand anti borom <laughs> la maa lay woo bu baax a baax waaw gis naa ma bologu bii barki Serigne Fall daf may jàppale bu baax si bépp côté war na Serigne Touba Mbacke maa ngi lay santaat bu baax a baax a baax a baax xam nga anti bu si maa ngi koy sant. waaw di santaan ñëpp si ma sant sow di woo père Sourou Fall écrit Colobane mbooloo bi ñëpp sunu grand tonnerre gis nañu taxaw bi bu baax père bàcc ñëpp sama coach Cheikh nag borom LT coach Lamine maa ngi sant bu baax a baax a baax ñoom ñoo teg lu métti barki Serigne Fallou ñoo may teg lu métti mais lépp rek rien que pour ma am ndam la rek. waaw di sant tamit waa Dakar Medina yéen ñi waaw ma seen fay quoi surtout yow mii Law Der maa bu baax a baax ndax mënoo nga ne ay mbir yu ndaw lañ mais xam ma fekku la ci yeneen ñi wër du ñuy génnee. loolu dafa rëy si ñun quoi geste bu rëy la si ñun barki Serigne Touba geste bu rëy la dina ñaan yàlla mu dem ba doon ay tele télé bilaay dinañ santaat ñëpp seen équipe bi yëpp maa di sant bu baax a baax a a baax waaw xam nga ndax li yombul quoi barki Serigne Fallou yombul waaw mais maa ngi woowaat ñëpp billaahi maa ngi woowaat ñëpp di santaat town bi ñëpp ñëpp ñëpp di wax ni nag Touba bi mention spéciale sama lépp la gis naa lu mooy taxawoo maa ngi koy sant bu baax a baax a baax sama ñoom jëwriñ Fallou bàyyiwuma kenn sama gaay yi may toogal ñëpp ma kenn kenn kenn Mariane Alice maa ngi koy woo Thierno Ndiaye maa ngi koy woo si combat bi mu ñëw jàpp si bu baax a baax baax comme ñu ma doon jàppale xamoo di woo képp ku ma doon jàppale rek di ñaanal na samay waajur yi dem yàlla naa leen yàlla yërëm xaar leen aljana ndax dafa métti man damay entraîné ba si yàgg sax naa man lu may def nii pour lan la sax ndax ñu ma ñu doon tax may jaayante di reyante tey nekkuñu fi barki Serigne Fallou ndax ko amoon sañoon tamit boo amee nga bokkoo say waajur mais dafa métti mais dañuy santaat yàlla waa xam ne tamit yàlla lu mu dogal rek dafa gën si jàmbi quoi waa di santaat yàlla di ñaan sama sama mag yi sama sama rakk góor yi di ñaan yàlla may la xolu muñ ndax yombul barki Serigne Touba day gis ma maay taawu kër gi te lépp ma la mais maa ñaan yàlla may la xolu muñ ñaan yàlla yéen a ma amoon sama waajur ma yeggale ko si ñoom barki Serigne Fall loolu ñaan yàlla yàlla may la gudd fan ak wér ñu fekkee lépp incha allah di ñaan yàlla nag yàlla may yàlla may ndam si kaw Boy Diop numéro 2 incha allah mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ma woowul rek sama xel moom fatu waaw nañ ma comprendre ku ma woowul sama xel a fatu maa ngi santaan ñëpp di gërëm ñëpp. moom mi ngi noonu euh, muy ngeen koy gis nii muy Siteu bu anti li mu wax léegi dafa daw yaram parce que nee na li ñi taxoon muy liggéey jóge nañ fi waaye mun nañ fi jóge waaye jógewuñ fi parce que ñi mu bokkal deret ñi ngi fi te yaakaar naa lépp loo am loo xam ne yéenal woon boo xam ne amoon nga ko say waajur say rax fi say sër a ngi fi say ñëpp fi yéene bi yeggali ko te bul fàtte di leen ñaanal di leen wàccal kaamil parce que loolu rek lañ fi am ah. loolu kese lañu fi am euh, ñëwoon fii nag euh, seetsi ko fii nga xam ne mooy Fass ñëw fii nga xam ne mooy bitigu Karamoto moom it mu ci muy woo Karamoto parce que Karamoto gaynam la frère am muy jàppale jeune artistes yi euh, di leen joxaat di daje ci beneen émission lamb ji fi bii Dak Médina nii lay demee nag saa ne dañuy seeti benn champion mooy li mu wax léegi bëgg nañ seeti ko am tour mais dañuy bëgg chaque jour di seeti booy yi nga xam ne jeune révélation bi la pour ñu mun leen génne bu ko defee ñu mun leen jàppale parce que booy dañuy bëgg lii dañuy bëgg ku leen jàppale di leen fësal nag di leen génne ci anam bu normal mu anam boo xam ne bu ñu génnee dinañ xam ne kii champion la mu nga seeti mbër saxatal ko wax ab question yoo xam ne da koy dugal déedéet ñun duñu bëgg loolu dañu bëgg saa su ne bu ñu waxtaanee mbër rek avec moom cœur ouvert bu ko defee ku ko dégg dina xam ne kii mbër bu yarul la mbër bu teey la te mu bëgg la mu jëm nag ci combat bu rëy mu digganteeg Boy Diop euh, nga xam ne Fallou Ndiaye moo ko tëgg di ko promettre na ko bu daanee da koy joxaat beneen combat mais pour daan nag moom moo koy def mooy liggéey pour wane loolu Euh, di santaat ki nga xam ne mooy Fatima l'infatigable laa koy tuddee Fatima tey moo géré tey li nga xam ni moo tax lii di leer muy caméra bi euh, at suñu grand muy Malick moom it l'infatigable la moom it euh, jóge fu sori ñëw jàppaat ci liggéey bi pour bu ko defee dang am doole a jëm sa kaw sa kanam ñu fi nekk nag ñun ngeen di seen mais du ñun mais ñi ne ci ginnaaw technique bi ñoo jar a gërëm di gërëm waa Dak Médina di leen jox di daje ci beneen émission di ñu ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñu ngi jëm Touba ñu yàlla yóbbu ci jàmm ñu jàmm zéro accident moom la ñuy ñaan wasalaam gars yi